nous sommes là aujourd'hui euh, dans le cadre de la lutte euh, contre les inondations dans la région de Kaolack. Venir aujourd'hui auprès du gouverneur de la région de Kaolack, remettre un lot de matériel composé d'accord de motopompes, 10 motopompes et une enveloppe financière pour le carburant à hauteur de 1 million de francs CFA. Donc comme à l'accoutumée, le donateur, M. Dorogay, est toujours à l'appel, ou bien répond toujours à l'appel d'accord la, du président de la République en faisant des actions sociales qui entrent dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre toute euh, circonstance, je dirais bien, qui aujourd'hui, euh, dans le cadre, bien sûr, de cette lutte-là contre les inondations à Kaolak, est devenue une nécessité pour la population de Kaolak. Parce que comme vous le savez, Kaolak à des zones qui inondent chaque année. Et le fait d'accord de venir apporter d'accord ce, don-là, bien ces matériels, va entrer un peu dans le cadre donc de, cette, de la lutte contre euh, les inondations ou bien ces eaux pluviales qui aujourd'hui occupent euh, des zones, mais des quartiers à Kaolak. Donc euh, on est venu remettre d'accord ce matériel-là au gouverneur pour la lutte contre ces inondations. Et j'ai l'habitude donc de le dire que Mouché Doragay est toujours dans, ou bien il œuvre toujours donc dans le volet social. Donc c'est un acteur de développement, c'est un Kaolokoa, mais à chaque fois, ses actions répondent bien sûr à la demande sociale. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Comme il a l'habitude de le faire, je l'ai dit tantôt, il a l'habitude de répondre à la population kaolokoise dans les moments les plus difficiles ou bien dans les moments où la population est dans les, dans des difficultés. Donc ceci n'est pas une première donc, pour euh, euh, le, ce donateur-là. Donc nous, sommes, nous ne sommes pas aussi à notre dernière action donc, euh, sociale. On est toujours auprès des populations kaolokoises pour venir en aide à ces, à ces, nécessités-là et, répondre bien sûr à la, à la, demande sociale de la région de Kaolak. turu population xaaxum ci li nga xam ne moo nekk sun ginnaaw muy ndox mii nga xam ne ku ko gis xam ne wax dëgg yàlla ñi fi nekk sonn nañ ñi fi nekk ah sonn nañ ba fa sonn yem ah Doro dëkk ci dëkk bi di doomi dëkk bi jël ndimbalam ne wax dëgg yàlla ginnaaw man Kaolack waalaa comme ñëpp dërëm bi ma am naa ko xaaj jël jël 15 ya ma ca war a jël jóobul ko waa xaaxum muy ndimbal loo xam ne dama koy def mu jëm ci ñoom jaarale ko ci sunu sëriñ Cheikh Ababacar Mbacke mu kabaro bi mu ko waxee it muy muy yónnee mu daal di koy yebal ci man ñu ñëw kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu population xaaxum yëpp dina xamee ne il n'est pas un politicien du politicien mais c'est un homme social parce que bu doon politicien ba mu nekkee ci terrain ba tey nit ñi danañ ko xam mais tey koo ne Doro Gaye mu ne la kuy Doro Gaye ki nga xam ne bëriwul waaye jëf ji jëf ju rëy la ndax lii jëf ju rëy la tabaski c'est pas la première fois parce que tabaski jox na soxna maman Anne madame Mbacke soxna sëñ bi un million de francs ci biir un million yooyu mu yëkkati ci fukki borom kër ak ñeent kenn ku nekk ñu jox la ca fukki junni man mi ca laa bokk la ca des mu jël ko jëndee ko xar jox ko sëriñ bi kon bu dikkaatee ak lii ci population xaaxum xam na ne jàpp naa ne moom jàpp bëgg na population xaaxum jàpp na leen kon ah ñun tamit wax dëgg yàlla munuñ lu dul di ko ñaanal ci barkeb Serigne Touba mi nga xam amuñ lu dul moom ah li nga xam ne action sociale bi mu def yàlla bu mu ci réccul dara. ñuy gërëm bu baax Doro di ko remercier ci turu président de la république son excellence Macky Sall lii nag du gulet dimbale woon na fi population yi bi Covid bi doo di déclaré wu. ci ñi njëkk dimbal indi ndimbal au niveau local ci la bokk ñu tëgaat ci ay fan hôpital bi aussi mu indi fa ay lallu réanimation yu bëri joxe ko fa keroog sërmine bi ñu ngi ko defee fee ci hôpital bi tey jii mbënn mi sonal population yi mu ñëwaat joxe lii nga xam ne ni lu am solo la muy ay moto pompe ak du carburant

maanaam xaalis bu nga xam ne dañ koy envoyé directement ñi nga xam ne ay sinistre lañ mais aussi dana am aussi yeneen i jumtuwaay yu nga xam ne ni da ngeen ko gis ñu déployé ko ci région bi pour vraiment ñëw xettali ñi nga xam ne nii ñooy jànkuwanteeg ak problème mu ndox mi gannaaw bu ñu leen masowoo seen coono ci turu président la république